nga nekk jigéen ñer la fan la war a yare fekk la nga toog sa ndey baax sa bay baax nga bokk ci famille bu riis góor dikk la aimé la takk la roof la aimé rik ca ngoro takk la ñu ni ban takk ñu ni duñ ko béral suuf lañ koy takk trop tard gàcce moo ci mujj li waral gàcc gi nag bi nga xoolee yow ba xooloo sa noon yi nga am bégaloo sa ndey xooloo li ci sa ginnaaw xooloo li ci sa kanam góor gi la takk takk suuf bëccëg la lay ay si dix ci suba. amul sens sax loolu. ban sens sa am li nga soxla ci moom dala koy ñamal baa mu cof la ko bu la fekkee nga nekk digg bëggante goo xam ne mu leer la ni aimé indo ngay aimé da ngay am goitre xanaa xamoon ne boo demee fii ci hôpital bi nga xam ne mu ngi ci wetu Wakaam. Ah. jigéen ñépp goitre. lu leen ko teg dañ ko def ran góor ñi ndax kin takk takk suuf moom boo bëggee dégg de commencé naa stressé wu. waaw doo gis jëkkër guddi guddi balaa jëkkër balaa neex guddi jot. nga sangu ba set tañ laayu def armal kabar mu leer la ni kii ko ko bokkal da koo lew mu lew la yaa aye sa ñaari fan mhm. waaye boo demee ba léegi bëccëg ngay aye ban sens sa amati te léegi nag li ma ci gën a naqari xale yi nga xam ne sunoo dégg ay xëy à tout moment heure ménage benn xale déggatu ko nga bëgg na kabar wuti wuti sa teg suuf mhm. te boo ci duggee ba ci biir da koy fésal di nga toll foo xam ne di nga bëgg mu fees te du mën fu muy feesee te yaa ko d'accord yëngale xew bis bu fesee bu bal bi di takk ñu lay wàcc. waaw loolu est-ce que mbëggeel dëgg tamit amoon na fa ndax góor su nekkee góor la takk jabaram parce que jigéen du takk kër takk jabaram indi ci këram man je pense que kooku jabaram waru koo yilif ba mu ragal a takk jabar bay takk takk suuf benn. benn jabaram waru koo yilif ba mu war a la ba mu ragal a takk jabar bay takk takk suuf parce que jabar ji la indi ci kër gi jabar ji nga indi ci kër gi yaa ko takk yaa joxe sa ñeenteel tranche ñu dem jàkka ja yow maye muy dikk di jàll sa ginnaaw du jàll sa kanam di sa ginnaaw lay lay lay jàll moo la war a déggal moo la war a muñal moo la war a sàmmal kon jooju jabar defe naa góor gu ragal jabaram ragal jabaram ragal jabaram ba di la proposer takk suuf nag xanaa ko jigéen ko war naa mën a mat nag ba carré ba war koo mën a bañ nag te xam ne fii boo fa sëyee doo am lu la neex doo am bànneex ndax kii dafa ragal jabaram moo tax mënu koo fësal ndax góor war te jigéen war te yilif góor waaye xam nga xale yi xoolatuñu mhm. liiratuñu journal moo tax euh, Abdou Aziz xaw ko génnee ndax yaa ngi xool mhm. waaye bu ko gisoon dama koy décorer mhm. laaj ma lu tax boo dee xool am na loo xam ne doo ci dugg te léegi ñi ñi ragal seen jëkk seen jabar yi dafa bari des fois sax du nekk ragal góor ñu ñoo nekk weex ba ci ñama ko sañ a wax nag. gëmuñu dara. gëmuñu dara. gëmuñu sa seen tur yi ñu tudd góor ñi gëmuñu ko. kaay maa waxal la leen sa xel bu nekkee ci Masamba ak Mademba ak Paate ak Anta Ndiaye ak faa Fama fay nga bëgg koo booleeg Mbène Diop mi nga xam ne yoonam nekku ci. Mm. nga ni naa ko jëm am ñoo xam ne dañu takk suuf tay may la lu dul jeex. bu subaa bu la xamee dootoo leen gis da ngay jékki ñu ne yónnee ma sama mbubb mi fi nga ko wékkoon pënd bi di ko jàpp ñu doog koo wékki. pour wala téléphone la kay jël sa boobu. léegi nga foog loolu àq. àq teg jigéen ñi dañ leen di influencé gëm leen lu ñu gëmul jël mbëggeel jël jigéen bëgg ko ba pare te léegi ni ñu bëggantee moo garaaw moo tax euh, xanaa xamoon ni bi li ñëwee ci réew mi la la xol yàqu. muy lan dañ lay fanaanee woo ba bër set jot. bu seen jabar nelawee ñu génn ci biti di la wax wax bu neex di la fanaanee bër mhm. bu nu xëyee bu nu demee ci bureau yi fanaan laa woo ba bër set jot ba ngoon jot. waa kooku boo ne ko dama lay takk takk suuf bugg ma sama jabar yëg ko fekk mbëggeel dox na ci seen diggante da koy nangu. kon maanaam góor ñi dañuy dox ci xelu jigéen ñi ba door leen am door leen a proposé yenn. takk suuf waaye am na jigéen ñoo xam ne bari na ñoo xam ne Bella ñun jigéen ñi tamit nañu sëkk te doy waar. nga ni jigéen bëri na jigéen ñoo xam ne ñooy créer takk suuf bi. Mm. ndax xaalis biñ cee am. waaye man ci li ma gis sax ci jamono ji ñu ngi koy wàññi. mu ngi koy wàññi. xam nga lu waral loolu. Mhm. anytime. xale dañ koo bëgg. ak heure ménage. dañ koo bëgg. madame nan. Mhm. lanu bëgg waaye foo fekk madame nan à tout moment heure ménage samedi lay doon heure de divorce dimanche ci ngoon. heure heure ménage samedi lay doon heure de divorce dimanche ci ngoon lay doon. waaw te yaa woo Sénégal. Mhm. yaa woo réew mi. <laughs> nga foog ni tamit du ñu toll benn moment boo xam ne góor ñi war nañoo mën a yërëm jigéen ñi parce que jigéen xelam dafa gàtt. te maanaam jigéen su bëggee rek day tax gumbalu bëgg na. mais yow mi nga xam ne yaay ko góor ki te yaa ko xaw a tane am xel tuuti bu ca bu la bu la bu la lu baax tax te jug baal jàmbur mais góor ñi li ma jaaxal ci ñoom ñoom dañoo dëgguwul ak ña ma ko war a wax nag. dañoo xoolatul lu baax di. ñoo nuroo lu ñuy wax ñoo bokk lu ñuy wax ñoo bokk lu ñuy ñoo bokk système lu ñuy. lu ñuy def te noonu la ñu mënee lay dangay ngay bett Abdou Aziz gis ko nii jaxlan mun la man. kon Bella xol man góor ñi soof nañ ma de. waa dëgg la mais kon xool góor rek moo ko am. non pas rek moo ko am de. ah mais ankay. balaa boobu ba léegi yéen a ngi wax. ah da ngaa defar. Eh, nga jàkkaarloo daa siisu daa ah. siisu. siisu ma de. mais takk suuf yéen a koy def. jigéen jigéen du takk jëkkër yéen a ñu koy proposé. nu ñu la koy proposé. waaw xam nga ne am naa soxna. Ah. mu ñëw nëbbu ma la. Ah. ne la am naa soxna. waaw nga xam ne am naa teraanga. waaw ne la man de échange yi suma famille fond mun naa ko noo xam ne. mënuma dugg ci beneen jabar. looy doxaan kon. sama xolam a tooñ. nit xol nit xolam laam. déedéet waaw mais dafa nang dañuy waxtaan nit xolam laam. Mhm. nga ni ma luyeel appartement. jarul sax ñaan gi nit ñi di bari fexeel élément nag ka koy topp rek. Mhm. léeg-léeg proposition yi yéen a koy teg ba ma dugg ci bu ma ci duggee nag nga commencé créer à chaque fois loo xam ne da may def da def ay polémique pour ma lay jox parce que ba nga ciy dugg intérêt tax nga dugg ci taman bi may ñëw maa ngi naan sax maa ngi naan maa ngi natt. bi ngay ñëw intérêt indiwu la mbëggal indiwu la de intérêt la indi yow. ankay yaa ngi am looy calculer. non non calculer wu ma parce que amul tax wax naa la li fi nekk. yaa ko waxal sa bopp léegi. non dañuy waxtaan wax naa la li fi nekk. Mhm. ba ñu ànd ñun ñaar di sëy nga dem ba ci biir di ma di ma di ma di ma koromp danga may laaj dara sax ma xaw a dëgëral nga ne ma kon nanu nanu nanu ko wasaare. waa li ko waral mooy bi ngay dem di takk jabar da nga àbbi say mbokk da nga ni luyee léegi. merci merci léegi boo luyee paa damaa bëgg nga déglu ma. kan mooy luyee paa. yéen yéen yéen góor xaar xaar la ku mel ni Assane Ndiaye ngay fekk mu toog. yor ñaari jabaram. ak Balla Fay ak Balla Fay mu ca France. nga naa dikkati tubaar fakkal la sa enveloppe bu dun jox ko ko dama laa jënd yow laa bokkal ndey ak baay te bokk leen dara. Hmm. Assane rëy dara comme Ibadou lay jaay. day daal di rëy dara sol ko ba mu yegg ab ma xanam bàyyam ba mu doon ca kër ga ni ko këpp ci boppam ànd ak yow wëri moroomam bu ànd ak yow dem takkal la ñaanali la soxna zaman fuu la kor bam la ko ñaanali la ko fàtte dama ne Bella boo bëggee dégg dëgg xale jigéen ñi dee nañ xam nga leen dugg takk suuf góor ñi leen influence ba jël seen kaa ngi jël ko xam nga kaa kaangu jigéen dafa yomb jël <laughs> bu nu ko naanee seen yuur gi ni ko farax kaay takk la ba pare tardel la bu nu demee ba nga bëgg a bir man gis naa koo xam ne lu ma dund la man a gis naa man loo xam ne man lu ma dund la man bu ma gis man teg ci sama bët preuve maa fekk police ba yaa doo doog a am gan eh, <laughs> bisimilah jàmm koo xam ne daa génn ak nit ay ak ñu génn waa ji ni ko bis boo bëggee boo bëggee ma takk la takk suuf lay doon te bis bu biree ma fas la bis bu bu biree ma fas mu takk ko dama la xaar kuy ma <laughs> mu takk ko tey wuy ma mu takk ko tey xale ba toog ba am ñetti weer ñu daa bëgg a biral waaw dama koy biral bi muy biral nag waa xaaral la ko ca dal daa biral mu wàcc ko am problème mu jeex takk di misère xolam des ma mbëggeelam des mu tëg di ko dund mu nekk lu metti loolu dem na sax ba commencé ajouté ndax jigéen jigéen rek la mu xëyaat mu takkat ko takkaat suufaati yéen leen fi tey yéen ñaar ba amoo leen jëkkër maa ngi koy dogg takkaat suufaati mu riigaat ko ca suuf sax ba mu ko takkaatee takk suuf ndaw si ni ko ma koy birilaat eh. ñu defaat ko tumbaag rumba troisième fois bi lañu waxtaan ba mu xam ne attanu ko ndax yàgg na ko bëgg imagine ki nga génne sept ans baa nga génne ak moom dix ans un an sax boo jëng boo ko génneeg jigéen ak góor ñi léegi ni lay miinale sa bopp loolu du ragal sa jabar nga xëy nga xëy ban façon ragal sa jabar ngi ci waaye xam nga lu ko yàq si signature bi léegi te yéen nga ni góor ñi léegi takkatuñ cas cas social ñoo dàqa ñëpp góor ñi bu lay doxal na naan Aziz Ndiaye ki nga ma a may kala nu mu jongo ma ngi xool kàr montre bu rafet boo leen mën a waaye nag Bella man góor ñi damaa am bu neexee ba neex dama mere sama moroomu jigéen ñi. <laughs> jëlal kooku. <laughs> salaamaaleykum. waaw. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw su baaxaatee rek mu ñëw xam naa ci réseau bi la su baaxaatee mu ñëw nga dangaa mere. sama nawlay jigéen ñi. ndax ci ñu ma ko sañ a wax. Mhm. xanaa xamoo ni góor boo ko naxee mu bëgg la ni la war a bëggee nob la nim la war a nobee du la takk suuf da koy biral waaye ñun jigéen ñoo perte suñu valeur. dëgg la ñun jigéen ñoo xamatul fu ñuy toog. Hmm. Aziz yéen nekk ci dëgg. Hmm. laaj ma lu tax. lu tax boo ma proposé takk suuf ma nangul la ko. <laughs> waaw man maa koy def. <laughs> teel a nangu day yombali duma bisimilah jàmm. man Abdou Aziz. waaw non non non Bella mën na koo dem foofu dama ne. Bella mën na koo dem foofu yéen ñu koy proposé. yow yow yaa ngi koy may lu mu wax. non non non ankay xam nga lu tax xam nga lu tax te dañuy waxtaan da ngeen ñu gis sax ñuy dem. waaw Ablaye Mbaye pex mi lu muy wax wasu ni. mais dinaa wax wasu boobu ba léegi ngeen tànc ma ci miir bi. di waxee ci benn benn côté rek. Bella nit kuy ngorog yow dugg ci yow ni xale yi di duggee léegi moo baaxul. nu xale yi di duggee buntu bu bi. am nga nday. baal ma jël appel bi ba pare salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw maa fii noo def. maa ngi fi maa ngi delloo naa la ziar noo tudd fooy woote. noo tudd fooy woote. waa tey sama réseau baa ngi may trahir de Abdou Aziz ñëwal réseau baa ngi may bu baaxee rek mu duggaat. trahir kat réseau da koy trahir. <laughs> Bella ba jamono yu baax sa ndey da lay tànnal. muy yéen eggale. waaw mu yéen nga koy jàppe yow nit ki ñëw na ne salaamaaleykum xooloo du sa intérêt lu la proposé da ngay jël xooloo lu dul sa intérêt. Mhm. lu mu la proposé da ngay jël bu la proposé takk suuf da koy nangu. ndax parce que xale yu jigéen yi xaalis rek la xool léegi ci góor. Mhm. ak appartement. isolé wu nga jëndal leen oto ñu gën a changé ba pare bi la préparer lu la jekkoo pour fulkan la xoolaat la leen toogatul sax fenn. xam nga lu yàq suuf toogaloo toogoo toogalootu leen wér geño toogalootu xam nga lu leen lu leen bàyyi ci nit natt la ba nga jeexal di di dem Dubaay Maroc di baagante yor seen oto di dawal di jaay maanaa waaye takk suuf gi sax toogatul fa. Aziz xam nga lu ma ci gën a naqari. Mhm. waaye yéen góor ñi na ngeen cee am part responsable. dëgg la yaa jënd xale bi iPhone 14. fuldu bi génn nga ne ko ci riig ñaar. te fuldu bi 900000 lay jar. xale yi ah, na loolu fuldu. kaay fuldu baa ngi noonu nga yor fu mu la jàpp. <laughs> waaw yaa ngi may dégg. Mhm. da ngay gis sax léegi xale bu jigéen bu am ñett jëkkër yoo xam takk suuf la ci jamono juñ toll temb ñett. Mhm. yoo xam ne takk suuf li di waral mu nekk takk suuf damay sëyeeg yow fii dem Dubaay xool fa ku ma neex sëyeeg moom takk suuf. <laughs> génn Dubaay dem Abida bi baa ma dugg Gàmbi gii baa ma dem Guinée. jigéen ju am juróomi jëkkër léegi day am. ndax jigéen ñi léegi xoolatuñu léegi seen valeur. loolu la foofu la bi ci des li ma gën a naqari damaa xam takk ni mu neexee seetu ni mu neexee ngay jàggal jàgg yor say feem. say mbokk ñëw dellu maam. waaw bëgg ngaa dégg dëgg man li nga xañ seen ndey moo ma naqari ñetti jàpp sa loxo wax nga dëgg xam nga ñetti jàpp sa loxo mm, xam naa ñetti jàpp sa loxo waaw looloo man ah, luy loolu <laughs> sa bàjjan toog sa xeetoo xam naa ñetti jàpp sa loxo ñetti jàpp sa loxo sa bàyyi tubaar fa kala jiitali moromam mm. ànd ak ki nawleem yëgali bokkam ñu dem jàkka ñu jënd guro mm. tàkku saan jot baa na julli timi sa par def ko yëfi murid sa papa meebu sa papa meebu ànd ak ki bokkam toog maye la eh. maye gam la war a may waa ni sarax ci biir kër gi xool sa bàjjan dem jaloore sa yaay. ñu muur la nga sëy. delluwaat sa sa yaay tubaar fakkal la mbartu ca ndaar. waaye ay bal xale yi xaaratuñ ko fii. xale yi xaaratuñ de. yow sa yaay sa yaay par wax nag lu tax xale yi amatuñu patience boobu. xam nga ko yàq sëba bi. waaw non sëba bi ak avion bi. waaw ah, bala mooy mooy koo gis ñu teg ko suuf rek ma nga ca biir avion yi. Hmm. ma ngay takk ci chaîne or yi nga yor fëldu bi li nga yor. fi mu la ko jàppee fi mu neexee boo ko fa tumbaag rumba dama koy réglé ne ko dama lay takk di tëral la dëgg la waaye xoolatuñu loolu moo tax man bi any time ñëwee am ñoo xam ne dañuy kaas dama ne xam nga lu tax boo dee gor as di nga ni man kat jomb naa ñu defa ko sama nawle bi barki dem te duñ ko defal wax nga dëgg heure ménage bi hmm. col yi sax mi ngi jamono waaye boo bëggee dégg bi laa may wax ak yow dama ne takk suuf toj na dëkk bi te li ku fi gën def ne maa la koy maa la koy wax dama koy xar. kilifa yi ci réew mi. kilifa yi wax fa laa bëggoon a ñëw déggoo ma di. fa laa bëggoon a ñëw borom barke yi ci réew mi borom barke yi ci réew mi borom barke ci réew mi. Abdou Aziz bàyyil ma bàyyil bàyyil bàyyil ñu ñëw Abdou Aziz Abdou Aziz ñu waxtaan ci xel. ngeen bëgg góor teg ci. non waa déglu ma rek ma wax la Abdou Aziz gis nga jigéen gis nga jigéen. bu nu ko jëlee xëy ni muy amee personnalité ci boppam góor noonu la war a amee personnalité ci boppam. gis nga personnalité wàccul kenn ci ñoom ñaar ñi nga xamante ni ñoom man mii ku góor su yàlla defee ma mën a gan takk sama jabar teg ci kër mettre ko à l'abri du besoin moom moomu ma su ma waree takk moroomam indi damay takk moroomam indi ñu fésal ko mais góor gi gën a manqué ñëwaguma ci jigéen bi mais góor gi gën a manqué mooy góor gi nga xam dangaa yor sa lépp mu mat nga doon